kuréel mi ngi tudd Linguère de émergence sopp Cheikh Abdou Lahad dëkk Touba Darou Khoudoss mooy kuréel gi waaw ko jëjoo waaw maa ko jiite waaw dafa am lu xew ci àdduna ñun ñu dëkk Touba juddoo fi màgge fi di taalibe Sëriñ Touba kon bu fekkee lii dafa xew ci àdduna ñëpp di ci daw di ci wuti te ñu dëkk ci dëkk bi war a mën a indi suñu ñaq def ko ci jumaay Sëriñ Touba ji rawatina produit bi nga xam ne ñun ñoo ko defaral suñu bopp jëggaane wuñu ko ñoo ko defal suñu ay loxo andi ko jébbal si ko fii ci jumaa ji ngir joxe ko ñu di ko nettoyé jumaa ji muy eau bi nga xam ne ñun ñoo ko defar utiwuñ ko fenn waaw loolu moo waral suñ jëf tey ama kër sëñ Touba ak kër sëñ xalifa général sëñ Mountakha Bassirou ak hôpital Jannat ak ak daara yi ak daara yi moom lañ taamuwaat tànneef bi li ko waral mooy takku liggéey rek boole suñu bopp di boole suñuy dërëm ak suñuy daqaar def formation bi ba ñëw ah di liggéey ci produit bi di ci jariñu nag di ci jariñ liñ dëkkal di jariñ suñuy dëkkandoo di ci jariñ suñu bopp di ci jariñ suñu njaboot ndax liggéey moom ah, yemut ak dara ndax ku liggéey rek di nga jariñ ndax lii buñ ko liggéey woon duñ ko mën tey ñun toujours bu jot ñoo ngi ci loolu ndax kuréel gu ñu yor yàlla dogal na bari na ñu nit trop ndax kuréel gu gu mag gi mat na 100 personnes gu ndaw gi mat na 40 mais toujours bu jot rek li ñu leen di wax rek mooy set ak setal ak gàttal seen tànk ah, setal seen njaboot di contrôler li ñuy lekk di setal biir kër yi surtout nag ñun buñ ñu dee liggéey ci eau de Javel kon set ñun war nañoo mën a yoon ndax kenn ku ci nekk bi ñu defaree eau de Javel ba pare ku nekk dañ lay jox nga dem yóbbu sa kër ñañu dëkkal jege leen ñu ay daaraat dañ leen ciy jox di leen ko baaxee ngir yàlla ak yontu bi jëm Sëriñ Tuubaa bëgg ñëpp set yàlla fi jàngoro ji jóge te bañatu fee ñëw ci barke Sëriñ Tuubaa jóge ci réew mi yëpp jóge ci àdduna bi yëpp soxna Jabaara Fall dak fii ci Touba euh, lii suñuy tànk ak suñuy yitte ak li ñu tax a jóg mooy xeex coronavirus Ah, suñ gan gii ñu gane si daal tey muy ñaan mu dëddoonu jàmm moo ñu tax a jóg moo ñu tax a xëy defar eau bii indi ko ci jumaay Serigne Touba ji ak waa kër Serigne Touba yi ndax kuy set ku ne ci jumaa ji nga ko tàmbalee ndax ku xëy jumaa ji nga jëm si kuy sàkk barke ci jumaa ji ngay ñëw ku bëgg jàmm ci jumaa ji ngay ñëw kon suñu defalee suñu eau de javel ngir bëgg jàmm bëgg set di xeex jàngoro ji ñu gane si te ñu ñaan suñ borom mu jële ko fi kon ci jumaa ji rek lañ koy mën a tàmbale ak fépp fu kilifa dina nekk ak fépp kuy jàng alxuraan daare alxuraan ñu ñaan nag suñ boroom jàppale ñu ci suñ lii ñu tax a jóg ngir koom-koom ndax euh, jigéen dafa war a liggéey dafa war a am métier dafa war di daan dooleem. kon suñ demee ba jàng produit bi man ko nag defar ko njëkki ko ci jumaay Tuubaa ji dañuy ñaan suñ boroom gën ñoo jàppale gën ñoo kàttana ba lii ñu sumb ngir suñu koom-koom suñ borom jàppale ñu ci tey ñaan nag jigéen ñëpp di génn di setal di sellal euh, di raxasu ci ordre sabel bi ak saabu bi setal suñu